aw li gën a fës si xëtu ñu commencé ko par l'Obs. l'Observateur tey ñëw def euh, euh, gëstu bu yaato yaatu ci li jigéen ñi di def euh, ci di jaawale mbirum sexe ak mbirum cuisine. donc dañuy gis ni daal li nga xam ne daa war a dem ci cin ñu jël ko di ko dugal ci jigéen dafa nekk loo xam ne daal xaw na doy waar moo xam ay condiments yu xaw a doy waar daal yoo xam ne dañ koy jël daal di ko si loolu nag nekk loo xam ne gynécologue yi ñoom nee nañ fii ak ñaar fukki at incha allah Euh, jigéen ñu ci bëree bëree bëree bëri bëri dinañ am cancer waaw li koy waral nag mooy comme di jël yenn mbir yi nga xam ne daal ci cin la war a dem daal ñoom ñu ne dañ koy saf safale ñu koy bàyyi ñu ngi koy bàyyi sax waaw day day day foog foog ñu bàyyi ko saf safal boobu day nekk loo xam ne dafay indi jafe-jafe donc tey lobs daal ci loolu la xëy ci suba si euh, beneen ci xëtam bu njëkk aussi mi ngi ñëw di wax euh, li tax Macky Sall président Macky Sall dàq ki nga xam ne mooy Mariam Badiane ak Thérèse Faye waaw kon dèjà loolee nekk na li nga ne daf taxaw nag moom de démission mais dafa dafa changé dafa limite d'âge bi. ok foog mu ah. euh, Mariam Badiane aussi am na benn moment tamit nit ki bëgg renouveler am ay voilà. Euh, voilà donc bu bees. voilà donc déjà loolu daal ci moom ci taxaw euh, mu tamit Euh, ci ngéeñeen bi mag Sall otom bi dafa dafa lakkoon recruté na ñaari expert pour ñu mën a ñëw diagnostiquer oto bi ba xam exactement lan moo ko lan moo ko taal donc l'observateur tey ñëwaat na it ci wàllu euh, tàggat yaram donc mu ngi wax ay psychologue yoo xam ne daal dañuy ñëw ci di wax ak euh, Lions yi waaye Serigne Mor mbay daal moom moo ma jaaxal Serigne Mor mbay parce que psychologue bi. waaw moom nee na daal euh, au lieu ñuy féetee échec bi euh, dañu war a faire le deuil donc mu nekk loo xam ne daal euh, doy na waar dama yaakaar ne ci 50 cinquante pays bu bu ñuy jongantee vingt qualifiés ci biir vingt yow nga nekk deuxième def naa ne am nga mérite quand même war nañ la voilà voilà et puis surtout que on a tellement été sur eux pendant toute la CAN que finalement xam nga mënon nañ leen tamit euh, voilà c'est le minimum voilà sentiment euh, euh, affection bi nit ñi amone ci ñom ak amour bu ñu am si ñoom waaw donc moom la ñu la ñu la ñu waaw waaw waaw mais dal dama yaakaar dal nit dal bu fekkee da nga nek bu ñu nee ci ci trois premiers parce que podium ñetti ñet ñet ñetti podium ñetti nit la

ah wante wane wane xarañte. Mhm. dem ba jeex si la nit ñi ne eh gars yi nag dañ leen dem parce que ñii sagal nañ ñu dimbale nañu te joué nañu. même tubaab yi sax même tubaab yi sax euh, accueil bi daf leen jaaxal quoi ba ñu wax ko donc man dama jàpp ne euh, nekk na loo xam ne mérité nañ ko mérité parce que tey jii ñii di kaas ñii di wax ñëpp kuñ fa tegoon ci place su yi doo def li ñuy def. voilà donc euh, on passe à autre voilà donc ki nga xam ne également nag njombe gi am ci kii benn xale bu doon def BFM moom daal nekk daa ëmboon dem ba ca géej ba am fa doom di gas pour suul doom bi euh, gars yi jàpp loolu mu waaw mu nekk loo xam ne euh, lu doy doy waar la le soleil soleil ñëw na ndeysaan dëj bi ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng génn àdduna euh, def na juróom-ñetti fan ci gannaaw nee na nag HCCT Ah donc. Euh, président voilà il est mi président ben way nañ livre de condoléances waye dëj ba légui wessogul ndax ki nga mom moy euh, Ahmed Amar euh, bu NMA Sanders mom tamit yalla dogal na demb momit mu donc mu melni jamono yi dal Sénégal ñi nga nos valeureux fils. Euh, yàlla ngi leen di jël euh, nànk nank donc loolu nekk loo xam ne euh, yàlla na fi yem yàlla xare leen àjjana te jéggal leen seen i baakaar ñu jàll si le quotidien le quotidien moom ñoo ne nee na Sénégal perte na benn capitaine d'industrie waaw koo xam ne daal ay junni junni nit Euh, la embauché woon voilà yaakaaroon ci moom mu leen doon dinañu perpétuer tradition bi incha allah rabi donc loolu mooy nekk li nga xam ne xam nga moom moo jëloon moo jëloon euh, li nga xam ne mooy mu leen sant nag da ko jël defaraatoon ko daal vraiment ci euh, et puis daan waajal ay yeneen investissement yu bëri far yàlla nag dogal li nga xam ne dogal na ko démb nag fa li nga xam ne mooy université Sadio Mané dafa faa demoon waaye étudiants yi daal dañ faa def loo xam ne kenn mënu koo expliquer jékkee-jékki rek jël ay xeet yi sàntante c'est que ñom dañu wara a bàyyi quoi. Euh, vraiment man comprendre luma ma. non tu yi c'est pas possible. waaw je dañu sukk rek jël xeer rek toj. dëgg yàlla man je comprends. vraiment je comprends pas fait bu nek bo xam la affaire bu bu bu yéeme la bu inexplicable ma yaakaar ne amna leneen lu laxu ci souf dal lu lu lu ñu waxul donc lolu nga tant que dépolitisé wu ñu université. Mhm. jàmm du fa am. waaw waaye Sadio Mané footballeur la. je sais mais dafa may tendance ay clans te malheureux c'est comme ça. waaw donc déjà loolu daal nekk na li nga xam ne daf si euh, daf siy taxaw donc mu mel ni daal euh, daf si euh, Amadou Wuri Diallo yaa ngi koy fàttaliku. Hmm. mooy ki ñu jàppoon ci affaire yu médicament ak yooyu moom démb nag tribunal procès en appel bi nga xam ne defoon nañ ko tribunal bi daal confirmé na non seulement euh, li ñu ko tëjoon mais nee na nañ ko dem jëli fu mu di nekk ñu jël d'accord waaw populaire. populaire moom ñoo na nee na Tanor et l'après Tanor ah euh, donc dafa nekk loo xam ne ki nga xam ne mooy porte parole euh, bu PS muy Abdoulaye Wilane donc wax na ci parti bu yaatoo yaatoo yaatu ci vox ci vox populi donc nee na ni mu dundee rek noonu la demee dafa nekk nit ku diñ nit ku discret discipliné du ken xamalu ko dara donc non la non la demee mu nek lo xamné rek euh, daf ci euh, daf ci taxaw euh, seen Sénégal ne nekk 44 auto yi fi daw <coughs> amuñu visite technique de dañuy daw ni rek. waaw ah, te policiers nek ci si koñ mu ah dañuy daw ni rek amuñu visite technique de. donc lolu tamit mu nek lo xamné ne daf si daf si taxaw donc ki nga xamné mom moy mom moy mbay Diagne mom nee jouer Afrique bokul ak boy jouer bitim réew donc ñaari football yi dal bokul Dakar Times Dakar Times moom nee na euh, gannaaw bi ñu defee gannaaw bi accident bi amee ci Mercedes su euh, ki nga xam ne moom mooy euh, président de la République nee na ñi ngi xalaat nag fi mu nekk ni di laam-laamee est-ce que réellement am na sécurité est-ce que réellement sécurité physique bu président bi dal wax deug yalla ñing koy lam lamé di ci am ay xel ñaar. nañ dem jégué ko. waaw donc Dakar Dakar Times loolu. enquête enquête mom ñëw na. ñu dem rek jégué auto président. mom kay ah, ah, doy na waar am sécurité wala mu sécurité. ah enquête nag nañu kaf. ah da daaw kafuñu lay enquête mom tay def na def na euh, enquête bu yaatoo yaatu euh, ci li nga xamné moy évacuation sanitaire li nga xamné ñu ngi koy def bitim rew donc ñu tuddé ko la grande nébuleuse donc mu nekk lo xamné vraiment euh, bari na ay vraiment coow ak yu kenn xamul yo xamné dal nekk na si si nekk na si dal donc déjà loolu nek na association de malfaiteurs escroquerie visa nag euh, PDG bu Cosaan production mom dal nee ay artistes yu bëri fi nekk nii jubuñu de ñu ciy dugg ci ay affaire yo xamné dal euh, yu yu doy war donc loolu nek li nga xamné ne euh, tey jii enquête si la wax lu bëree bëri. tribune tribune ñëwaat na ci li nga xamné moy xew-xew bi fi am kooku di Amad Amar Ahmed Amar yalla def mu génn adna muy direct président directeur général bu NMA Sanders donc mu ne. Sénégal daal perte na wax dëgg yàlla punkal dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg donc déjà nekk na loo xam ne taxaw na si euh, journaliste bi nga xam ne aussi dañ ko rey muy day baa Déba Aïdara donc benn militaire moom nee na yaa jàmme moo jox ordre pour ñu faat ko donc mu nekk un de taille boo xam ne daal euh, doy doy na waar laas laas moom ñëw ne nee na Ahmed Amar wax dëgg yàlla ku xarañ dem na waaw ko xarañ dem na ko xarañ génn gën génn am na àdduna euh, cascade de contentieux crédit mutuel daal fi mu nekk yi moom it mbir ma yombul de coow la bëri na fa de coow la bëri na fa trop donc mu mel ni daal ay décision yoo xam ne yu yu yéeme yéeme yéeme daal euh, yu bëri xew na fa euh, donc loolu nekk li nga xam ne daf si daf siy taxaw daal moom ay gàllankoor yoo xam dañ si ne Walf Quotidien Walf moom ñëw na nee na parti boobu boo moytu dina pëcc xóore pëcc dina fa am de révolte dina fa am de loolu nag mi ngi xeeñ Serigne Mbaye Thiam nag ak Aminata Mbengue Ndiaye daal ñoom ñoom la rebelle yi teg ay gët waaw nee daal du ñu nangu ñu. mosuñu si jóg ñu jiite leen. Mhm. voilà donc déjà loolu nekk na li nga xam ne daf si euh, daf si taxaw donc ci loolu la euh, ki nga xam ne moom mooy. Euh, waaw Walf ci loolu la xëy libération libération ñëw ci Ahmed Ayar nee na un Ahmed Amar nee na un modèle s'effondre donc mu nekk koo xam ne wax dëgg yàlla dundam daal amoon na njëriñ. waaw dina que démb nag la génn àdduna nga euh, France. la les échos. les échos maa ngi la ko doon wax sànq Sadio dafa université mais dañ ne Sadio Mané le pire ñoom daal booy dañoo jékki-jékki <coughs> commencé euh, di di di di di. di di di di di ci dum daal doy na waa mu am ay bousculade daal yoo xam ne que booy di xeex euh, ci ci ci ci ci waaw Sadio Mané nag nee na boy, nag wax dëgg yàlla mérité nañ pour ñëw di leen seet si mais na daal. doy na waaw ki nga xam ne mooy aussi euh, tamit na kii na du defet dama gisul fii defet ndax ku dem ba deuxième ci 50 états ci 50 états yooyu mu am vingt 24. dem ba mu des deux nga jël médaille d'or jël jël fair play am cinq jours yu ci équipe euh, CAF encaissé milliards lu la leen. réew mi réew ah, kan sauver.

lan moom manqué woon lion yi pour ñu gagné donc ñu def ci jàngat bu bu yaatoo yaatu donc am di fay moo wax na ci Lamine Dieng na wax na ci Pape Thiaw ancien joueur moom tamit euh, wax na si donc ñoom ñëpp nekk na ñi nga xam ne def si def si daf si euh, taxaw euh, Sadio Mané it xam nga démb dama na université nee na daal moom mi ngi xalaat pour xool nan la ñuy mën a def pour mën a améliorer seen condition de de vie donc déjà loolu nekk na li nga xam ne xam nga nag bu coupe kii amee dañuy def bilan waaw. ñu def bilan donc euh, bilan bi nag tey jii euh, ki nga xam ne moom mooy Esat euh, ci loolu la xëy. sunu lamb sunu lamb ñëw trajectoire croisée du roi et du roc muy Eumeu Sène ak ki nga xam ne moom mooy Modou Lo am titre royal amay succès revers miracle ci juróomi at yi daal ñoom daal seen i mbir daal nii daal la def. Mm-hmm. waaw croisé kii daa jaar gauche kii jaar droite ñuy dajaloo. donc le 28 rek. le 28 dimanche incha allah rabi donc euh, mi ngi nekk euh, li nga xam ne def si kii ñoom nag nee nañ Eumeu Sène mooy favori benn coach jamono moo ko wax nee na Eumeu Sène moom mooy favori te bu ñu moytul kawoo mun na ci am tamit ah! bon. loolu la wax neexoon nañu daal <laughs> neexoon nañ léegi nee na day nekk euh, combat boo xam ne daal dina métti lool pour Modou donc donc déjà loolu wax na ko ah mu mel ni rek Lac de Guiers xam nga dafa. xam nga dafa demoon euh, fële dafa def donc CNG jox na ko ndam ah. waaw nee na daal moom moo moom moo moom moo moom mooy les les deux euh, comme le de gagné Boy de Je daal dafa bëgg ñu jox ko revanche waaw da bagage. Hmm. mais

merci beaucoup euh, Seydina borom ñaari galon yi tàggool bok wa xana di jox euh, ñep dig dajé inshallah allah rabi suba ah bu neexee suba ram ci sen benen euh, revue de revue de presse di ñaanal ñep kendal jàmm di am jaale nak di profito vraiment am sunu papa ñun wa Géejawaay wa Medina Thiering xam nañ ko muy Ibrahima ñu gën ko xam ci Bill mu nekkoon euh, doomu Adjaratou Aram Diène nekkoon député PS yàlla dogal mu génn àdduna tey jii ci suba euh, fële ci opta principal donc euh, xam naa du ñàkk dinaa dellusiwaat rek pour ñu mun ko gën a wax kañ lañ koy jënd ak yooyu di en tout cas di ko jaale waa UBK yëpp di ko jaale Baro Diène di ko jaale doomam yëpp wax dëgg neex yàlla macha allah yal na ko yàlla xaraa jëna amiin yàlla jërëjëf mbokk yi ñu nekkoon ak yéen depuis 7 heures du matin fii si King FM